Euh, donc mën nañu jëli tout de suite seetlu dikkaat alors euh, ñi nga xamante ni ñoo di ay way waylaago euh, waaye nag euh, jëlee ko ci li nga xamante ni moo di accident loolee la awa di waxtaanee tey ji war ci feggoo ak Mamadou Niang donc dañ leen ni bàyyi rek ñu dugg ci waxtaan bi. alors mi ngi noonu Salma wax ci feggoo ak Mamadou Niang mu nekk chargé de communication de l' association nationale des victimes d' accidents vivant avec des handicaps mu mm. doon. tolluwaay wala boog situation bu métti boo xamante ni mhm. ñoom ñu ngi koy dund te pourtant ci biir société bi lañ bokk ci biir euh, askan bi lañu bokk xëy na liggéey lañ doon def ba ndogal bi daal di euh, dal seen kaw mhm. déjà Mamadou Niang yow li nga xamante ni moom moo la dal tey muy mbirum euh, handicap déjà nan la la dalee ak naka nga koy dundee pour mhm. merci invitation bi effectivement question la boo xamante ni day ñëw souvent dama ko expliquer ci plateau yu bare effectivement dama doon xëy di liggéey. Mm-hmm. man donc euh, fu ma doon liggéey euh, machine bu ma doon liggéey. Mm. Euh, man moo. lan nga doon liggéey. Grand Moulin dakaar laa nekkoon. Mm-hmm. man j'étais un meunier je suis un de production de de production. Mm-hmm. machine bi ñu doon liggéey nag moom moo xëy le matin. am problème ñu képp sama loxo bi. dagg ko. ba mu ko daggee ñu yóbbu ma principal ma def fa six mois. Mhm. après bon comme comme d'habitude euh, après noonu la def euh, te du man rek y a beaucoup de personne mhm. ñoo xamante ne ñu si usine boobu ñii seen tànk ñii seen loxo. Mhm. finalement machine da leen di dagg même yeneen société yi c'est comme ça doon koy fii ba ba may ñëw si yoon bi rek am na beneen société bu ma woo ni ma am na kenn koo xamante ni aussi machine bi yàgg jàpp na loxoom dagg na ko. donc ñun dañ koy dund tout le temps. loolu moom euh, nekk na loo xamante ni. Euh, dañ koy vivre. après bi la loolu dalee euh, choc bi naka naka nga ko dundee. Euh, dafay metti parce que imaginons man ak samay moroom comme comme ñu ngay gis ñi dem di liggéey aussi dem di gis oto dem di liggéey man ak ñoom a yam rek. dem di liggéey oto bi coincé la am na benn femme Aïssatou Kabo moom dafa demoon di liggéey di wóolu doon liggéey loxo bi tamit kepp ci oto bu mu doon accident. mais après dafay metti parce que euh, problème bi mooy imagine nga xëy di liggéey am ñaari tànk ñëw ñibbisi ak benn tànk si kër gi mm. choc boobu ñuy def day nekk choc boo xamante ni day répercuté sur toute la famille mm-hmm. Mm-hmm. day répercuté sur toute la société et day indi après ay jeexantel yoo xamante ni si si dund nit ki mm-hmm. day metti trop donc nekk na loo xamante ni dañuy ñaan yàlla rek comme dañu bañantal kenn te jommul kenn mm-hmm. jommul kenn ndax euh, ñun ñu koy taxaw di wax melu ñu woon noonu la preuve euh, am na kenn koo xamante ni euh, dafa defoon accident il y a maintenant 2017 mm-hmm. waa ji ko yóbbu woon loxom moo daggoon complètement loxom gauche mm-hmm. waa ji ko yóbbu woon en 2023 waa ji def même accident fu mu ko defee woon donc nekk na loo xamante ni dañ koy dund mais dañ koy dafa nekk loo xam ne ça passe euh, silencieusement ñu bari duñ ci wax. Mm-hmm. mais nekk na lu lu metti loo xamante ni mais ñu ngi koy dund seen biir. Mm-hmm. avec la plus grande dignité. avec la plus grande dignité alors mm-hmm. ginnaaw loolu bi mu leen dalee. Euh, prise en charge bi naka lay demee. waaw si loolu moom euh, dafa nekk loo xamante ni amul prise en charge Sénégal. ndax doo ko dégg fenn mosoo dégg sax fi journée des accidentés fii au Sénégal. mosoo ko dégg te am na le 28 avril c'est décrété par l'OIT euh, organisation internationale du travail mm-hmm. journée des accidentés au Sénégal mm-hmm. mais doo ko dégg ñu wax ko parce que dañ leen di bàyyi noonu rek comme on dit donc moo tax ñu ñu suy wax di si communiqué sax ba ñu si commencé communiquer nii ñi sax c'est la ñi mel ni yéen mel ni Walfadjri ñu ngi leen di gërëm parce que comme on dit c'est la euh, c'est la télé des des sans voix mm-hmm. ñun ñu ñu may opportunité di si wax parce que généralement pour ñuy wax si dañ naan leen ah ñii de moom c'est des personnes vulnérables rek nañ leen tege de côté doon waroon daana comme ni ngay waxee dee sax moo leen danoo danoo rëcc en quelque sorte donc nañ leen tege fee mais yéen li nga nimee opportunité ñuy wax moo tax dafa am benn prise en charge boo xamante ni amul benn yoon même société yi nga doon liggéey ñu mel ni man ak ñu mel ni ñeneen dañ leen di dàq parce que dafa am benn article benn code bu tudd code de sécurité sociale code bi c' est depuis 1973 moo xamante ni moo régir cest à moom moo protéger tous les travailleurs yoo xamante ni ñi ngi Sénégal mi yéen di man ak caméraman yi et tout ça. mooy article 113 ak 114 code de sécurité sociale normalement moo war a sécuriser les travailleurs mais boo xoolee ba si biir article boobu dañ see wax waxaat ci joyantu ko joyantu ko pour état bi def si dara mais jusqu'à présent. rien de bouge moo tax ñu bari si ñun bu ñu accidenté quelque temps après bu ñu defee un an deux ans rek dañ leen di dàq bu la dàqulee tamit dañ lay mettre au frigo ba yow dootoo amul benn promotion interne dootoo amati dara te lu la dal tegoo ko sa bopp accident la. Mhm. nekkoon na loo xamante ni te fii rek la am la preuve am na benn am na benn am na bu mës a am au niveau de de sédiment. benn benn benn kii euh, benn étranger la sax dafa ñëw doon monter benn usine après machine bi jàpp loxo bi dagg ko complètement mais ba mu man maa ko seeti woon hôpital defal ko ce qu'on appelle remontée psychologique parce que ñun dañuy def ce qu'on appelle remontée psychologique. Mhm. te loolu dafa am solo si euh, accident parce que bu fekkee danga def accident amoo ku la jàppale amoo ku la ku la taxawu. Mhm. day nekk loo xamante ni dafa metti léegi nag euh, ñun remontée psychologique boobu ma ko defal ba mu demee ba foofu dafa wax ne moom prise en charge am bokkul ak leneen dañ ko utal feneen defal ko réinsertion parce que ñun dañoo am ay loi dañoo am ay code yoo xamante ni dañ ko teg pour nit bu defee accident euh, dañ la war a toppatoo daf mel ni accident silico bi ñuy wax ni ak sargal bi y avait de avait mm-hmm. te trava accident boobu 90 pour cent ay accident de la parce que dañ doon liggéey parce que ñi dana ne fu nga doon liggéey rek bu defee mhm. la mais loolu nekk na loo xamante ni euh, nit ñi duñ ko jël en compte dañ lay boole ce qu'on appelle la caisse de sécurité sociale généralement. parce que moom pas mais caisse la boo xamante ni comme ni ñu koy waxee euh, état bi daa daanaka euh, dafa bàyyee accidenté caisse de sécurité sociale. ah mais million yi ñuy dégg kon 300 millions yi nga xam te dañ naa dañ koo jagleel les personnes mm. vivant avec euh, suñu ko gis OIT chaque année mu dë mu joxe 300 millions pour les accidentés dañ ko war a jëli mois de d'avril mm-hmm. mais ñun mosuñu gis 100 francs ah kenn mosuñu ko jox taxe bi kon fu muy dugg euh, waa caisse sociale ñoo koy lekk oh. directeur caisse sociale suñu PCA bi mu ngi tudd Mademba Sock mm-hmm. moom moo ko nekk moo tëdd déggu ko fenn. moom moo ko lekk. ñoom daanaka ñoo ko lekk bu ko lekkul tamit ñu ko lekk si la bokk. ndax ma dem ba soog si boppam moom mooy PCA bi. parce que c'est le président conseil d'administration. Hmm. voilà normalement waroon nañ gis ñun te teg si encore même suñu revalorisation de rentes. Hmm. mooy ñu def accident ba defee accident normalement dafa am benn dafa am benn genre euh, pas mais benn benn nampaay bu ñu lay jox. boo xam hmm. ba ñetti weer. ay loolu mu leen la jox de barewul de daf mel daf mel dañ la yóbbu retraite hmm. daañu fàtte suñu paa yi bu ñu demee retraite da doon liggéey doon am boo demee retraite ñu yóbbu la kër ga jox ay 30 mille 40 mille c'est même chose dañ yóbbu retraite di jox par 3 mois hmm. ñetti weer yooyu ñun lay la hmm. euh, président la république monsieur Macky dafa dem conseil des ministres ba nu commencé communiquer mu wax ko trois fois en conseil des ministres wax wax na ko au mois de excusez-moi ma jox la date yi au mois le 3 novembre wax na ko wax ko le 1er décembre wax ko le 23 janvier yëpp conseil des ministres mm. pour que ministre du travail monsieur Samba Sy mu xool problème accident yi xool seen revalorisation de rentes mm. mais boo xoolee dara du si am y a suivi mm. wax na ko ba pare dem naa si benn plateau nee na ma est que président mi sax complot wul ak ministre bi parce que moom mënul wax lii wax ko wax ko ñetti yoon te jusqu'à jusqu'à présent y a rien te boo xoolee dafa nekk loo xamante ni euh, ñi li ñu koy wax nii xëy na da koy dégg-dégg après nga tërëfal ko mais nous sommes tous concernés c'est-à-dire que pas nous moi je ne plus. lu mel ne man liggéeyatu depuis boobu liggéeyatu liggéeyatuma. dañ la dàq wala dañ ma dàq complètement non dañ dàq dañ ma dàq. grand mu ne dañ ma dàq. parce que euh, situation bi nga nekkee situation bi nga nekkee. dañ lay ba d'abord j'ai été mis au frigo comme on dit. Mm. nga nga dem ba mel ne instant. les gens dañ lay licencier bu leen licencier nag dañ lay licencier ce qu'on appelle avec un départ négocié déguisé dañ lay woo naxanteeg yow ne la mënatoo dara zappe sa moral comme man directeur bi dafa toog Franck Baba ni ma bëggatuñ liggéey ak yow parce que da nga mënutoo liggéey li nga mën mënutoo te foofu la ma dalee non du man rek y a beaucoup de personnes ñoo xamante ne noonu la ñuy dundee mënatoo la la wax mënatoo mënatoo mënatoo ko c'est grave parce que effectivement ni nga kooku am na benn booy. mais ba nga daan liggéey après après accident bi naka lan lan nga doon def concrètement da nga daan dem toog wala. après accident bi. oui donc da nga doon liggéey da nga nekk di liggéey mais xam nga nu nga meloon mënutoo ko mel. Mhm. am benn tànk. Mhm. wala ko amoon ñaari bët am benn bët mel mel ni mu melantoon. moo tax sax l'occasion pour dire loolu moo tax sax te ay tubaab généralement ñoo koy def. Mhm. surtout les français. loolu moo tax nit ñi dina dañuy parce que c'est des révoltés si nekk sa benn xarit sa benn sax grand wala dara mu doon liggéey si ay tubaab tubaab bu xëy mënut te tubaab xam nga boo amatul njëriñ si moom rek da lay génne sànni la boo xoolee suñu société yoo xamante ni comme seen PDG yooyu ñoom ñoo ëpp yërmande parce que man gis naa koo xamante ni jëkk jëkkëram dafa gaañu ñu jël ko ñu jël ay doomam gisoo dañuy jël ay doomam wala dara mais mais ñoom buñ la mënutu rek dana jël sànni la sibiti te yoo xamante ni am RSE da nga nga gaa ngi ñëw léegi nga dégg ñu commencé publicité c'est l'occasion boo xamante ni pour nit ñi bàyyi xel ko ñooñu moom moo tax que état bi la moo tax tamit état bi gën a war a protéger te du kenn nag ku état bi moo war a protéger les les travailleurs. mais ba mu la dàkkee est-ce que jox na la ay ndàmpaay. wala dafa la dàkk rek jox na ma ndàmpaay 326000. 326000 waaw la ma jox ma da nga amoon contrat foofu. CDI contrat à durée indéterminée. <laughs> te ku ma te ku ma ko jox tamit nit ku ñuul la. en bonne nit ku nit ku ñuul ñuul kukk moo toog jàkkaarloo man jox ma loolu. est-ce que les conditions de sécurité euh, ci liggéey bi c'est c'est réuni parce que le plus souvent aussi ni may déggee ngay wax accident bi machine bi moo yóbbaale loxo yi peut-être que gant protection yeeg yooyu peut-être que sa mm-hmm. amut effectivement man ba ma defee sama accident service bi amul na sa service de sécurité mm. mais man ba ma ba ma ko defee après man si laa jóg loolu tax sama gën a xaw a jàppanteeg direction bi parce que daanaka il faut ñu mettre en place service de sécurité parce que dama ne sama accident après directeur bi fi nekkoon am na directeur yoo xamante ni am nañ tuuti yërmande parce que moom xamoon na ni am na erreur mu jël ma yóbbu ma formation sax dem naa fi ba Europe pour def formation. Mm-hmm. pour la sécurité. ba nu mettre en place ça ba nu ko mettre en place benn service de sécurité tax na lu bare accident yi bare wàññeeku boo xoolee accident Sonacos c'était en 99 en 92. accident Sonacos bu nekk fii Dakar. ok en tout c'était en 92 il y avait 1000 il y avait 300 morts et 1000 blessés. accident oui c'est vrai ak euh, c'est vrai. avec l'ammoniac. Mhm. accident Sonacos boobu si je vous dis aujourd'hui c'était le mars. donc te dans quelques jours dañ ko war a célébrer normalement war nan suñu waxtaan wax famille yi toppatoo famille yi essayer mhm. xool bàyyi leen xel. Mhm. mais accident boobu les mille ble les 1000 les 1000 blessés yi si nekkoon ils sont tous morts. Hmm. parce que dafa am benn benn produit bu ma doon jël caisse sociale waroon toppatoo mais pratiquement li ci des bareetul te ay 30 mille la ñuy fay ko par ñetti wet liggéeyatul. waaw parce que ñun boo boo gisee ma lay poser question bi le plus souvent da ngay gis ñenn ci entreprise sax bu ñu la nee euh, comme par exemple euh, ñu jël exemple bu gën a euh, patent mooy maçon yi du yeb leen. mën nañ la wax ne ne foog nga sol casque wala yenn hauteur yi ngay jël nga am ceinture mais dañ lay naan grawul quoi. bàyyi ma mm-hmm. bàyyi ma dóor waar rek. effectivement est-ce que ci biir entreprise yi aussi du loolu moo mooy tax euh, ak accident yu bëri négligence euh, protection euh, kii bi au niveau individuel li ngay wax noonu c'est vrai que dafa am solo parce que moom moo war a tax nit ki woon mais loolu tamit dafa am ce qu'on appelle service de sécurité parce que nee naa la man ba ma defee accident loolu amut hmm. après dama xeex ak ñi ma nekkaloon foofu xuloog direction bi ba nu mettre en place benn service boo xamante ni day fonctionner vingt quatre heures sur vingt quatre boo defulee bu la joxee euh, comme li nga wax ceinture de sécurité solo ko dan la koy dan lay sanctionné. Hmm. la preuve euh, dafa am sama benn ouvrier bu ma doon liggéeyal. il avait 23 ans. Euh, booy jaa maa ko jëloon mu nekk si benn vis di liggéey vis bi jàpp tànk bi pendant cinq heures de temps ñu dagg ñu dagg tànk ñu dagg tànk bi te xale boobu moom rek moo nekkoon yaakaaru papaam xale mi ngi nii di traîner. Hmm. entreprise bi dàq na ko grand mu dàq na ko. yeneen si entreprise tamit yu mel noonu MDS feneen tamit noonu la euh, Senchim bare na bañ a cité entreprise rek pour ne pas. Mm. waaw waaw bon parce que boo gisee sax généralement sax ma leen di cité. Mm. parce que dama si am tuuti problème parce que les gens me disent que bu tax boo doo leen oh, mm. exemple laa joxe rek. juste c'est un exemple que je donne par exemple. c'est un exemple boo gisee ma joxe mën naa jox plusieurs entreprises euh, ñoo xamante ni euh, mais boo xoolee c'est des je reviens encore sur les étrangers rôle CNAO euh, mooy centre national d'appareillage orthopédique bi nga xam ne léeg moom mooy euh, jël en charge dimbali ñi nga xam ne par exemple des tànk lëmm bi wala loxo bi mën nañu am yenn protection euh, yi ñu la war a mën a jox. est moom mooy dimbal bi nga xam ne da nga wax c'est très mooy CNAO boobu mooy centre d'appareillage bu nekk fii. Mm. kooku c'est la caisse de sécurité sociale moo ko géré je je vous explique man def naa amputation loxo. war naa am protège damay dem si caisse de sécurité sociale mu bindal ma benn kayit moo war a dem ñu war ma defal appareil. caisse dafa mën a jox tous les deux ans tous les ans dafa mën a jox tout chaque année dafa mën a jox deux appareils. mais pour mu jox la ko rek c'est tout un problème mais. pire lu tax tout un problème. parce que dan la dan la ko yombalul bokk mais lu gën a lu gën a garaaw loolu am na lu gën a am na lu am na lu gën a am na lu am na lu gën a kii loolu. Euh, monsieur monsieur Khoudous am na lu gën a kii loolu. boo defee accident say këyit say papiers yi nga war a toppatoo et tout ça kam moo ko war a toppatoo yow yaa koy toppatoo su amul benn service bi la koy toppatoo da gis tey boo demoon caisse sociale demal nga def benn enquête nga taxaw si bunt bi je donne cinq minutes yu nga gis nit ku yor ñaari béekeem moom mooy soox moom mooy soox bu dugg si biir ñëw brandir dossier ñu ngi ko sa dossier bi manqué na lii ak lii waa ji génnaat dem. Mm-hmm. di dem di ñëw di dem administratrice bi ak administration bi lanu lanu lanu diisal nu mu la ko mën a waxee ba de telle sorte que da ngay mujj dem yow da ngay mujj découragé ñu bari nag découragé nan toog nan comme li bàyyi nañ leen yàlla et des gens qui vont s'en qui la drogue. Hmm. dañuy dañuy ñu bari dof nan comme on dit. Hmm. ñu ngi ci amee sax plateau bi ngay gis victime d'accident doo ko bare bare barewul Sénégal. Hmm. la preuve ba fi accident bi amee gis nga fi ANASER sociétés yëpp euh, agence nationale de la sécurité routière gis nañ yeneen ministre du transport gis nañ ministre ñi ñeneen génn nañ mooy accident bu mujjee am hmm. est que dégg nga ñu wax ci victimes yi hmm. récemment ANASER créé euh, def na benn ngan di conférence indi africain yëpp mais on parle pas des victimes d'accident hmm. pourtant ñun maggal Poroxaan bi ak màggalu euh, Kazu Rajab Kazu Rajab déggoo y a eu zéro accident ñun trois jours avant Walfadjri ñëw na couvrir suñu manifestation pour ñu def prévention pour wax ak nit ñi on est mieux placé pour dire aux gens. te juba boo xoolee prévention bi seen seen collègue yi demoon y avait que des accidentés yu fa nekkoon. Hmm. de la leen xool leen nii ba ñu ko defee def prévention ba ñu defee prévention bi def communiqué bi permettre na nit ñi dem nañ si jàmm. Hmm. ñëwaat te yaa boo xoolee déggoo ko yaa eu zéro accident. même euh, ñun dañuy def suñuy prévention mais ñoom duñu associé. Hmm. parce que lu tax associé lenn rek la parce que ñun jàpp nañu ni nit ñi. yàqu nanu bokkutunu dañu waroon dee rek rëcc. donc nan leen teg de côté. Hmm. te yaakaar naa ni te te wane na mën ñu interpellé xëy na Marlo comme c'est un syndicaliste. Mhm. normalement euh, surtout par rapport ak euh, seen àq yi nga xamante ne dañ koy salfaañee euh, lan nga ciy wax. gannaaw ba ma ko ma soowoo moom ak ñi nekk ci situation bi yëpp. Hmm. dafa am benn jàngat bu ma def. déglu naa ko bu baax. Hmm. mais ñaari jàngat la génne si li mu wax. mooy si seen bërëbu liggéeykaay. Mm. dafa am mesure de sécurité yoo xam ne dafa sooxe. Mm. mais aussi gannaaw ba leen accident dalee. Mm-hmm. dañoo nasaxal seen i ak yelleef. Mm-hmm. loolu nag saafara bi parfois dépassé na accidenté bi en tant que tel. Mm-hmm. mais day interpellé euh, kuréel yi nga xam ne ñoo nekk si bërëbu liggéeyukaay yi. di veiller sur respect ak yelleefu liggéeykat. et loolu liñ si li euh, liñ si war a tirer comme enseignement mooy liggéeykat yi bu ñu nekkee en activité dañoo war a veiller mettre en place ay organisation syndicale yu capable porter seeni préoccupation mm-hmm. en tant que liggéeykat mais aussi ëllëg pour seen ëllëg aussi. Mhm. moo xam à la traite da leen dab moo xam accident. da mhm. dab. et je pense que beneen observation aussi def naa ko si. Mhm. mooy disposition réglementaire yi nga xam ne ñoo nekk en vigueur. parfois dañoo lacunaire ñu war leen recontext ñu war leen contextualiser. adapter leen ba euh, genre situation yi nga xam ne jombul kenn. peut-être que nag euh, liggéey yi uute nañ. peut-être que man risque yi ma exposé wu en tant que enseignant mm-hmm. uute na ak risque yi nga xam ne boo nekkee ci euh, usine mm-hmm. boo xam ne peut ñoo ngi utiliser ay produits chimiques boo xam ne ñoo ngi utiliser ay machine mm-hmm. duñ benn mais je pense que protection pour les travailleurs benn la mooy waroo loru ci sa bërëbu liggéeyukaay mais bu nattu ñëwee ba nga jële fa accident mhm. war na am benn prise en charge optimale boo xam ne c'est le minimum et mhm. loolu nag gis nañ ne sooxe na mais interpellé na organisation de défense des intérêts des travailleurs. des travailleurs oui, mhm. c'est parce clair. que bu ñu ko bàyyee état rek. wala bu ñu ko bàyyee entreprise rek. je pense que du dox. du dox et puis c'est vrai laago du wees mais monsieur Niang. tey jii est-ce que c'est pas mettre sa vie en danger ngay liggéey foo xamante ne amaana bu la fa dogal dalee dalee leer ni ñoom ñoo lay moom moo war li ngay wax moom dafa am mais tamit nit il faut ñu liggéey parce que comme on dit nit même bu dul góor yàlla moom liggéey rek la xam daw waar la xam bay waar la xam c'est vrai que dañuy mettre en danger suñu vie bare si ñun euh, dégg dañ koy am tout le temps euh, de nee naa bu ma ñëw rek am na ko ma woo mm-hmm. ñeneen dañuy woo mais boo xoolee mais il faut ñu liggéey aussi mm-hmm. mais lan moo tax euh, employeur mooy ku la jël di liggéey lu tax moom mënul la mettre dans les bonnes conditions pourtant caisse de sécurité dafa am benn direction bu tudd direction de la prévention loolu mooy liggéeyam day dem ci société yi bu demee daal di xool bu duggee bu duggee fii Walfadjri dugg xool mm-hmm. ani contre une opinion nga war a def mm-hmm. ñëw xool xool lampe yi est-ce que est-ce que xool na est-ce que est-ce que baax na est-ce làmp mm-hmm. lampe yi adéquat na pour bëti nit ñi wala dara mais caisse de duñ ko def <laughs> te normalement day yàq après nit bëtam. mu dem ba si biir mu indi ko yeneen yeneen kii même chaise yi ñuy toog nii. chaise yi ngeen di toog nii sax pour liggéey. Mm. dafa am ñoo xamante ni caisse da ko war dem di xool. te loolu boo xoolee yooyu yëpp. gisuñu ko ñu koy def contrôle yooyu wala bu ñu ko defee defuñu ko comme nu nga ko war a defee. mais bu dee caisse euh, sécurité sociale ñu koy jox xaalis pour yéen. Ah. te yéen doo si jox est-ce kooku dina am jot ñëw di. amul jot amul dëgg yàlla amul jot parce que tellement ñoom ñoom ñoom comme lu ma wax toppatoowul les accidentés ñu ñoo si gën a sonn les accidentés teg si encore ñoom dañu ñoo beddi bàyyi ñoo aussi liggéeykat parce que aussi am na loo xamante ni man dama naan état boo defee accident. Mm-hmm. nga doon liggéeyee si benn société privée nga xëy di liggéey def accident. état bi da jël en charge lu mu si mën yóbbu la jël la hôpital. Mm-hmm. faj la def lu mu mën c'est l'occasion aussi ñun ñuy gërëm ministre de la santé. Marie mm-hmm. Khemesse parce que ñoom quand même lu nu mën ñu ngi ko def si ñun. Mm-hmm. jël nu jàpp nu toppatoo nu même ba nu mujjee suñu accident sargal beeg ñun ñun def nañ visite. accident sargal silico bi. dem nañ ba foofu ba ñu demee interpeller les les les victimes ñu ñoom ñu danoo soxla ay ay euh, danoo soxla ay ay ay psychologue ñun dañoo génn wax bu nu génnee wax ministre bi dégg nañu pourtant ñu ngi ñuy dégg. Mhm. mais la am na loo xamante ne dañ ko bëgg régler am na loo xam bëgguñu ko régler parce que ba nu waxee ministre yi yónnee na fa ay mini mhm. ñooñu yónnee fa ay docteur ñu def remontée psychologique nit ñi da leen di jàppale psychologiquement. Mhm. mais comme li ngay wax pour revenir sa question ak euh, liggéey fii Sénégal képp koy liggéey daal na nga moytu na nga xool bu baax fi nga teg sa tànk boo fi defee accident fii pour balaa nga jox sa ndàmpaay di nga sonn ñaareel bi duñ la fay. ñetteel bi aussi sunu je le je ne cesserai de mm-hmm. ñu ñuul ñi PDG yi ñuul yi sax patron yi ñuul yi ñoo tane sunu tubaab yi nasaraan yi fi nekk parce que ñoo ëpp yërmande parce que ñee moom parce que non ba dem ko dund. te dama ñu bari ñu ko dund. je suis pas le seul on disait que c'est le contraire. on disait que tubaab bi ñoo ëpp. non non non mais de mm-hmm. amee. Mm-hmm. xeet ku baax ak xeet yu bon. Mm-hmm. am na tubaab yoo xamante ne danoo baax. danoo parce man la preuve boo ma defee sama accident. je te le cache pas bi fi nekkoon grand moulin monsieur Stéphane dama ko dama ko mais même ma pas man mais y dafa dem ba créer benn genre amical. pour ñuy defoon accident di leen toppatoo. Mm-hmm. mais ko façon de nit la. Mm-hmm. mais ku fi nekk nii wax dëgg yàlla moom. Mm-hmm. lu yàlla xam doy na. dafa ñu bedd ñëpp dàq ñëpp. léegi seen association euh, bi nga xamante ni moom moo ŋànk nit yi nga xamante ni amaan dañoo amee laago. ñu jëlee ko seen liggéey ñaata nit ñoo ci nekk. à peu près ils sont plus de actuellement rek ñun ñun ñun ëpp na 9000. 9000 personnes te 9000 te euh, non accident Sénégal euh, y a un monsieur de la DRH monsieur Abdou. mu ngi tudd monsieur euh, Abdou. mentionné naa ko quelque part. parce que moom DRH bu fan. bu ministre de la ministre des transports monsieur Diop. Mm-hmm. mu ngi tudd Abdou Abdou Karim Diop. Mm-hmm. bind na benn livre man liir naa ko te dama wax sax ñi nan ko nan ko essayé nan ko essayé joxe nit ñi liir ko. Mm-hmm. livre mi ngi tudd les accidents de la route au Sénégal. gis nga livre dafa wax ni Sénégal. pour te dire nu nu amee euh, day am presque. bon chiffre exact la jox nee na sapeurs-pompiers ñoo ko jox Sénégal day am 482 par mois par année. par année si accident. Mm-hmm. pourtant OMS ba mu ñëw ak 27000 blessés. Mm-hmm. mais OMS ba mu ñëwee dafa dafa ni dafa ni loolu amut. Mm-hmm. nee na Sénégal day am 4000 morts par année si accident xam lu tax parce que les 27000 blessés les 20 pour cent dañuy décédé. parce que accident de waroo ñoom à l' instant def la ñuy def la ñuy def bi. Mm. mais boo toogee dans un comme arga accident sargal bi. Mm-hmm. boo demoon xam ñu ngi noonu quatre vingt morts. Mm-hmm. tey boo demee tey yokku na cinq morts wala six morts. Mm-hmm. moo tax day nekk ñoo xamante ni te boo xool day ba mu xoolee OMS mooy organisation mondiale de la santé. nee na Sénégal dañuy am euh, quarante sept accidents par jour. quarante sept accidents. mais mille morts par année. donc ñaari batalo Joola mm-hmm. la am par année si ñu décédé mm-hmm. mais lu si gën a metti mooy dans cinq ans ñaata lan deux millions mm-hmm. ana ñooñu seen famille da leen dégg d' accord léegi sànq maa ngi la ko doon laaj mooy le rôle bi nga xam ne moom lay Sen'Eau di jouer ci ci wàllum prise en charge des accidentés euh, nga ne ma su ma juumal que ne ça dépend de la caisse de sécurité sociale pourtant CENAO euh, ci ci ministère de la santé la bokk. Mhm. ministre de la santé la bokk. waaw mais boo déggee ma sa dépend. parce que léegi la ko rectifié ñu ngi koy nuyu au passage. Mhm. mooy Djibril Bey. Mhm. Euh, mu ne CENAO euh, mi ngi dépendre mi ngi nekk établissement public de santé ça veut dire que mi ngi ci ministère de la santé. moo taxoon sànq ma lay laaj parce que le plus souvent gis nañu ñenn accidenté yi. CENAO ñoom ñoo koy jël en charge ci ci wàllum appareillage bi euh, ma la koy laaj mais li euh, liñ ci bëgg aussi dégg c'est comme si bon yow li la gën a intéressé mooy sa diggante ak ñoo xam ne ay patron d'entreprise lañu. non parce que yow euh, Khoudoss balaa nga naan nam ne fa sax yow balaa nga naan appareil faju ba wér. Hmm. vous parlez d'appareil. waaw mais boo fajoo ba wér parce rek même rek. quand vous parlez d'appareil. mais boo fajul ba wér ba pare. appareil protège la rek te esthétique bi rek lay lay kii parce que esthétique normalement da nga ko war a fay parce que tey j'ai pas d'appareil moi comprendre mais loolu la doon laaj sànq après nga ne yow yaa ngi daw ci sa ginnaaw appareil euh, nga nga daal di fexe boo génn ci question bi dugg sa diggante ak yenn patron non man non non man daw ma sa si appareil je dis que appareil du man je te dis suñu association si boo pare ma jox la 4 à cinq personnes ñoom loo et

duñ dem ministre de la santé pour réclamer des des appareils. Mmh. quand tu da ngay dem à la caisse de sécurité sociale tu fais la demande. Mmh. caisse de sécurité sociale moo lay jox papier. Mm. bu la jox ni nga dem doo dem ministre de la santé da ngay dem directement. fii ngeen ko mm-hmm. jox leen ko ñoom ñoo lay defaral. à Paris. donc ñun. Euh, laaj bi. waaw waaw très bien donc ñun ñu ñoo def mais pour dire que. Mm. pour euh, juste pour dire que juste pour dire euh, dafa lu administration bi. Mm. moom moo cest à pour nga pour nga jot ko. moo nekk loo xamante ni moom laa bëgg ko dafa jafe. parce que normalement deux appareils nga war a am. par mm, année. chaque année te ñoom ñu ngi am fa benn mujj bi mm. yéen seen association fois da ngeen di jàppale les les les veuves ak les orphelins. effectivement ñan ñoo nekk seen ginnaaw di leen jàppale. amul état bi wala ñan ñoo. je le je le dis euh, bu nu bëggee suba nu ñëw amul kenn te on a beaucoup de veuves. Mm. beaucoup d'orphelins. comment vous faites alors pour les aider. Euh, ñun de comme on dit ñetti weer la ñuy fayeeku bu nu fayee ko gis président bi cotiser hmm. jox 1000 francs ñu joxe mille hmm. am ñoo xamante ni dañuy am ay jafe-jafe bu ñu ñëwee gis président président yëkkati ni mu ne jox mu jox leen mooy président accidente yi mooy Tidiane Sow ma koy saluer au passage. moom moo ni jàppale si lu nu mën a jàppale. amul leneen lu nu mën a def. sinon accidente yi boo ko defee veuve yi jooy nañ ba sonn parce que il faut nga am certificat de non remariage te loolu code de moom laay waxat dañ ko war a réviser depuis 1973 la président wax na ko ñu def ko mais ba léegi defuñu ko ba léegi code de sécurité sociale. Mm. mais même bu fekkee femme bi ñu ngi noonu même les femmes là dañuy certificat de non de de de non remariage bi moom mooy di permettre ñu amaat beneen jëkkër. Mm. parce ba sa jëkkër gaañoo dañuy amoo droit am beneen jëkkër. pour kees benn. 30 mille mu ngi lay jox par ñetti weer par ñetti weer ah, mais il suffit boo amee beneen jëkkër rek mm. day dagg 30 mille yooyu par weer mm. donc nekk na loo xamante ñun ay jullit lañ parce dana war a dana war a am jëkkër mm. xale yi aussi dafa am ay école yoo xamante moom lañu état bi agréé ko boo fa demee doo fay mais yeneen te tuuti école la le reste yëpp c'est des écoles yoo xamante ni yaay fay donc nekk na loo xamante léegi noonu amoon na solo lool xëy nous les femmes euh, euh, suñu jabar yi gis nga accident gis nga accidenté mm. euh, am na ñoo xam ne dañuy daw seen jëkkër de bu ñu seen jëkkër accidenté non non wax dëgg yàlla fan la ñuy jaar ñibbi seen kër am na ñoo xam ne bare na trop Abdou <laughs> mais wax dëgg yàlla ay jàmbaar gis nga ci exemple bare na mm-hmm. bare na trop trop ñoo xamante ni seen jabar dem nañ demal boo demoon tey boo demoon tey tribunal ñu bare dossier yu ñu am sax ñun bari ñun dañuy am ay remonté yoo xamante ni pour ñu jàppale leen ci avocat mm-hmm. les femmes ñoom ñooy jàppale les accidents. Mm. ñoom ñooy téye kër yi. macha allah ñoom ñoo ñu yóbbu hôpital. Mm. ñooy sunu yaay mm. ñooy toppatoo njaboot te boo xoolee ñoom du ñu daw. Mm-hmm. du ñu sàkki du ñu dem fenn. Mm-hmm. te loolu dafa nekk loo xamante ni euh, c'est moi moi des femmes. Mm-hmm. moo tax dafa nekk loo xamante ni yaakaar na war ko mën a wax pour aussi ñu leen wax ni. gàcce ngàllaama. nos femmes. parce que wax dëgg yàlla bu nekkuloon ñoom yaakaar naa dina gën a metti Mm-hmm. pour les victimes d' accident di terminer rek di wax ni képp ku yaakaar yow tu à l'abri d'un accident mm-hmm. même le président de la république mm-hmm. il n'est pas à l'abri d'un accident personne n'est à l'abri d'un accident parce que jommul kenn kenn kenn kenn. mi ngi noonu joomul kenn ñuy ñaan rek yàlla yàlla def jàmm. Ah, euh, muccal ñu ci accident yi waaye it képp ki nga xamante ni aussi am nga nekk nga un accidenté aussi ñu def suivi bi ci war. Euh, mm-hmm. taxawu la bu baax a baax ndax da nga koy soxla. donc mu nekkoon lu am solo di leen wax rek euh, yàlla baax na xay na un jour viendra dinañ toll ci Sénégal boobu. awa mm-hmm. di la jaajëfal yow aussi. am ci yaakaar jërëjëf Salma. donc mm-hmm. di ko remercier bu baax a baax Mamadou Niang ci disponibilité bi remercier également Mélanie Aminata Samb ci coordination donc di ñaan ak bonne volonté yi ñu gëstu ginnaaw association yi nga xamante ne amaana ñu ngi fii di dund ay jafe-jafe yu métti rawatina les personnes vivant avec euh, des handicaps donc mi ngi noonu amul mbégte. Mhm. jox leen rendez-vous après koor incha allah après <laughs>